équipe supervision bi aju ci commission technique amaloon ay tukkee nemmeeku ci mboolem site yi nga xam ne ni booba ak léegi ñu ngi amal liggéey bu am solo ngir ngacc ndox mi ci ay bërëb yu fasantikoo ci dëkk bu tedd bi di Touba. ci jéego yi nag tax na nag ñu gën a leeral kuréel gi ñi ko séq ak mboolem ñi nga xam ne ni jàppale sëriñ bi ci bëgg-bëggam. yaakaar naa ne ku gis image yi xam ne liggéey la boo xam ne. ñi ko seq ñëpp am nañ ci conscience bu mag a mag a mag a mag tàmbalee ko ci sëriñ bi sëñ Mouhamadou Mountakha ak état ak population yi kon kuréel bi nga xamante ne bii sëñ bi taxawal na ko ci turu junnatul liman nasamahu commission bi yor wàllu technique bi chaque jour dañuy xëy di dem ci terrain bi di xool liggéey yi ndax lépp loo xamante ni bii lu ñu war a jot ci ay mode pompe la ak la koy doxal ci fonctionnement ak la koy doxal ci nit ay technique ak main d'œuvre commission bi moo koy ànd ak jëwriñ yi nos ko moo ku ci ne boo xëyee dem ci terrain bi buñ demee ba mu xaw naaj équipe superviseurs yi génn ci terrain bi ànd ñoom liggéey bi kon tey ñu ngi ci ci benn site boo xam ne Guédé la ci poste courant bi muy site bu mag boo xamante ni bii yaakaar naa ne liñ ci bëgg bu sottee fii ak ñaari fan lépp lu nekk ci Guédé ci ndox incha allahu taala dana dugg ci réseau bi kon ñu ngi fii ànd ak sëñ Bamba Mar te commune bi boole ko ci commission bi waa Touba ca kanam ñi ngi ñëw sëñ Abdou Fatah woo nañ ko mi ñuy rejoindre man maa fi teewal Hizbut Tarqiyyah muy ñett ñoo xamante ne bii ñoom ñëpp ñoo composé commission bi ñu ngi fii ñoom fekk si fi capitaine tin bi nga xam ne moo supervisé brigade bu Touba bi ngir ñu ànd ak ñoom xool liggéey bi ndax liggéey benn liggéey la dañuy accordé suñuy doole ak suñuy xalaat kenn ku ne ñu seet fa nga mën a ñu yóbbu fa. amul lenn lu fi mu toll nii lépp. ci coordination wu comité bi la ak sous préfecture bu Ndam lu waaye joxe gannaaw sëñ bay mën a joxe bu joxe ba noppi bàyyi comité bi mu taxawu ko kon lu leen lu waaye joxe it bu xasee dugg ci commission bi yow feeñatoo comi commission bi moo feeñ moo tax dina dégg ñuy wax naan maire Dakar joxe na ay groupe mais su xasee bu joxe groupe lay jël groupe bi en charge comité bi la ñoo leen jox carburant jox leen fonctionnement héberger leen leen taxaw bi ak biti ngir ñu mën liggéey waaye amaa jëmi moto pompe moom maire mun na ko joxe epase mun na ko joxe bon volonté mun na ko joxe ndax am na tey koo xam ne joxe na sans moto pompe te tuddu ñu turam kon li ci am solo mooy lu waay joxe boo xasee ba joxe nañu wax ne diw joxe na nangam waaye bu xasee bu ñu ci comité bi nag day mel ni jëfi sëriñ bi rek moom mooy li nga xamante ne bi moom mooy feeñ. ñenn ci technicien yi nga xam ne ni ñu ngi nekk sur le terrain ñu ngi leeral itam ñoom boobaak léegi seen liggéey naka lañ koy doxalee. effectif bu bu ne day nekk cinq ba six saa bu nu xëyee bu nu déparé commission bi day ñi nga xamee ne ndox dafa dugg seen i kër dañuy ñëw ci biir résidence ñuy bindu bu ko defee bu nu xëyee ñu yewal équipe mu dem ci terrain bi équipe bu ne saa boo xëyee boo demee da nga dugg ci kër euh, def nga def vérification bi jël numéro identification bi site bi ak numéro bi léegi commencé vider soo soo paree aussi da nga fay jaar nga photo waat ko nga recensé waat ko dugal laat ko ñëwaat yóbbuwaat. soo wàccee nga def rendre compte waaw loolu tamit dafa am solo ci liggéey bi waaw euh, ndax it wax dëgg yàlla bu liggéey bi daal macha allah saa bu ñu xëyee dañuy def ay ay neuf kër da ngay gis digg boo xam ne day def dix kër sax par jour euh, bi ñu commencé seq léegi daa ba pare war naa war naa ma six jours au sept daal te site yi dafa bari da dem benn kër boo xam ne daanaka dafa lekk dafa nekk ab loo lay doon te loolu da ngay euh, maanaam day xa day dem ba xaw a météo day def intervention sa ba deux matin ndax bi ndax biig rek ñoo ngi fi fi ba une heure matin waaw di gërëm woo par suur équipe bu ne mën naa def quatorze quatorze sites par jour par jour maximum quatorze sites comme ni ma la ko waxee tamit noon la ko doxalee boo duggee ci kër da ngay def opération bi nga recensé ko jël numéro contact bi waaw soo paree aussi nga rendre compte jox waa comité bi pour ñoom ñu vérifier ba xam ndax kan fa yebal def na liggéeyam wala wala déet ñoom it di leen gërëm bu baax aussi ci seen liggéey quoi macha allah wax dëgg wax dëgg yàlla. non non non non wax yàlla demagul ci benn jafe-jafe. amagul benn jafe-jafe ndox mi tamit wax dëgg yàlla naam métti na waaye nag daanaka ma bu tan taw yi fi taw ñaari fan yi man lu bari moom wax dëgg yàlla wàññeeku na askan wi nga xam ne ni ñoo féete ci bërëb yi nga xam ne dañoo indoone gannaaw bi ñu gisee équipe technique yi ak seen liggéey fàttewu ñu benn yoon biral seenub cant jëmale ci liggéey bi nga xam ne nii mu ngi am ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides. sama kër moo nekk ne léegi nag ñu ngi sant dañuy jiite ci nuyoo bi sax Cheikh Mouhamadul Mountakha xam mooy suñu kilif ñun ñëpp di ko sant bu baax di ko gërëm bu baax nit la koo xam ne nit ku baax la nitu diine nit ku aru yërmande loolu Cheikh Saliou waxal ni ku dul yàlla mi bind bindee fi ëppoo ma yërmande ci ñoom. mooy foofu la nekk kenn ëpp ko yërmande ci doomu aadama yi dama jéggi damaa jëlale Touba sax waaye ah, eh, maanaam lépp luy xew ci adduna bi ak fu mu mën a doon ak ñu mën a doon yëkkati na alam dugal ko fa ak lu xew rek kon rek rawatina ak Touba gi nga xam ne moom moo ko yilif di lépp di léppi lépp la ci def lépp luy moye def na ko ci lépp luy dimbal def na ci ñu ngi ñaan suñu borom di ko ñaanal mu yàgg fi lool lool Mbàkke lii suñu jafe-jafe nag mooy fii ah, ñu bari sax xam nañ ni daana taax da ndox yàgg na fi am waaye nii mu aggravé gën a grave nii gën a mel nii mel moom wax dëgg yàlla bi ñu jarwee mais sapeur pompier le capitaine Tine ak ñi topp ci moom muy colonel Pam Ngom ba ci këjee ci gën a suufe waxtaan guddi ak bëccëg waxtu wu ne ñu ngi ci site bi bañ nañ ko sax balaa moo taw dañuy indi seen raccord raccordé tak di xaar taw waaye nag lii dafa jéggi dayo ba dem na suñu kër yi tey ji dem na ba ndox tey nangu na ko noor ak nawet dañuy manque noor ak nawet dem nañ ba nga xam ne dañu dafa kere benn nab nab nga fi nekk ñu dem ba tamit mu def fi la ñax bi ñuy wax barax nga xam parce que moom fees na ko dañuy génn dañ koy quitté moom moom mëntuñu wàq bañu génn kër gi moom mëntuñu dëkk moom li fi ñëw am na na ah, li fi li fi indi am na ah, defar na ma ndax fenêtre bi ci kaw xoola hmm. ndox mi doon jaare dugg ci biir néegi armoire yaag dund baag lépp ak ci biir ak yére hmm. lii ma sol ak li ñuy sol moo am hmm. te maag sama bokki dëkkandoo yi ñëpp ñoo ci bokk yem kenn kat ku fi ñàkk jàmm yàlla la ko xañ te yàlla lim def nag ku yóbbu ko jafe-jafe yi moom comme ni nga paa bi waxee rek ñun waa koñ bi yëpp koy dund waaye dañuy sant yàlla xam na yàlla moo ñu ko teg gis ngeen kër gi bi ñu ndox mi dafa demoon ba tollu ñu ci suñuy ndigg mais sant nan gis nañ taxawaay bi ndax machine yi ñëw na pompe nañ ko ba lu bare bare baree baree wàññi ko nañ ko léegi fi mu toll nii ndox mi parce que li ñu wër pàkk yi ñuy wër rek moo ñu sonal comme ni leen ko kilifa gi waxee rek jéem a saafara li nga xam ne mooy li wër li wër koñ bi ñëpp ñëpp am ñëpp am jafe waaw ah, junnatun liman nazamuhu ñi ci bokk ñëpp ñu leen di sant di leen ak Touba ci kanam ak ci mairie bi. di ab liggéey boo xam ne nii nii ñu ko daal di nemmeekoo ci superviseurs yi aju ci commission technique noonu la amee ci mbooleem wànqaas yi nga xam ne nii dañoo daal di seq kuréel gi di junnatun ci fàttali di kuréel gi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké taxawal fasantikoo ci commune bu Touba. xisbu yi ak Touba ca kanam ngir ñu wallu nag mbokki taalibe yi nga xam ne nii danoo ci mbënd mi ci anam yu fasantikoo wa li saalikin muridi wa jannatan